ca diwaanu Kaolack préfet ba daal dinay takk ki nga xamante ne nag moom mooy premier adjoint au maire ba préfet bu Kaolack dootul fàtte benn yoon jaar-jaaram a fa nga xamante ne moom mooy ca capital bu Saloum gannaaw ba ñu demee demal ay section du conseil municipal bi le préfet ci la tëggat ki nga xamante ne moom mooy premier adjoint au maire boobe ba léegi nag tàqalikuwuñu tey ji nag préfet bu Kaolack daal dina koy takk mu nekk soxnaam moom Mariama Sarr loolee laas mu ñu ko xamal